di leen wax ni vraiment li ñu gis tey dal na xel ndax ñun suñu mbébét yëpp mooy que président Macky Sall mobilisé rassembler le maximum de personnes pour que qu'au premier tour des élections mu jàll facilement. je pense que li ñu gis tey au niveau de la Médina et je pense qu'on peut dupliquer ça au niveau de de tous les de toutes les communes de Dakar ce que nous avons vu est et montre que à suffisance que vraiment ñun euh, nous sommes sur la bonne voie. non parrainage comme ni ma wax sànq. parrainage bi vraiment mi ngi dox ni mu war a doxe man yàlla dafa dogal dama nekkoon ay ay mission au service de l'État donc nekk ma foon sur euh, le terrain je suis revenu mais je sais que dès la première semaine ñun bi ñu tàmbalee mbir mi boobu amoon naa première statistique parce que je voulais avoir les tendances première semaine bi rek on avait beaucoup de de mais maintenant nu ferons l'évaluation semaine prochaine naa fi nekk c'est le projet ñu def évaluation bi te dinañu xayma génne en toute transparence li nga xam ne def nañ ko au niveau de la Médina et au niveau de Dakar et de Thiès parce que rappelez-vous ni nga ko waxee sànq ñun on est ouvert maintenant la CATB CATB ne se limite plus à la Médina donc fépp la ñuy dugg parce que loolu ñu président Macky Sall sant il faut massifier il faut mobiliser et nous sommes dans cette voie. waaw waaw xam nga euh, politique moom animation la rek il faut beaucoup d' animation moo tax ñu ne sànq euh, lii nañ koy wéyal dañ ko continuer. Euh, chaque mois chaque semaine dinañ def ay organisation yu demee ni mel ni euh, vraiment mobiliser nit ñi dimbali leen wax leen li président def wax leen li li président bëgg ñun ñëpp ñu ànd si manko li ñu bëgg mu antu incha allah euh, au soir du du du 24 février.